daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax dañu am taw tawfeex rek lañ ko xaas la ñu am ñoom ñun fekk nekk ci xas xaas la am xaas am bu wér wér wér yoo xam ne taw bi ñëpp war nañ see ñee te ngeen mënul ci fàggu waaye xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg Sëñ Tuubaa am na ko waaye ñun xaas ngeen am. mbokk yi la sunu ñeenteelu jotaay ci xasida gu tedd gi ngeen baaxoo di ko toppal. di leen ko toppal ak seen ndongal daara Ibrahima Seck mu mel ni bi ñu mujjee ñëw noo ngi woon ak yen fu sëriñ bi radiallahu anhu doon jullee ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci lam ko waxoon wa bika jumlata sunubi xafara wa kullama xalla ya ani kafara mooy sunu borom bi ko wa taala wa kafara na jéggalee bikka ci sa daraja jumlata sunu bi mboolem samay bakkaar ba tey na jéggalee wa kullama ak lépp loo xam ne ale ak gàll woon na sama ko man sëriñ Tuubaa kafara na ko kafaara moom yàlla andi mu wëlis ma waaye nag ci sa daraja kon ñaan lu go amaam solo la daal na ko yow ku ñu tànn ki yow ku ñu tànn ki bi tey yow ku ñu tànn ki ko ci ñetti turam al mustafa al muntaxa al mujtaba na ko yàlla na yàlla dolli xéwal ci yow mi nga xam ne jubal na la ba noppi tànn la ca tànnuwaay ba waaye nag yàlla na yàlla dolli wóolu ci yow ànd koog say waa kër ñi nga xam ne ñu tedd lañ ak say saaba ñi nga xam ne ay sang lañ ba noppi nag mu womataal ma ak lépp loo xam ne sama càkkuteef la tey ñaan yooyu lay continuer kon tey ñu war dalee ci ñaan yooyu nga xam ne moom lay continuer moom jëmi sëriñ bi radiallahu anhu mu ne wali siwaaya nahya wasaqaa kaffa wa ma yaxrimu ni wa ma yaxrimu nirtiqaa mu ne sunu baram wali siwaaya na dàq mu jëm ci fudut man a nax ya lépp loo xam ne lu ñu tera la wasaqaa ak texee di lépp loo xam ne lu ñu tera rek wala ak texee di te xam ne ku ca nekk taxe di mën na caa juddoo wala yasu billah yàlla nu ko daqaale mu jëm ci fudut man moo tax man wali siwaaya moom yàlla na daqaale moom yàlla ci jëmi bopp man ci barkeeb salaatu yi nga xam ne moom lay sàkku ci mom mu sotti ko ci yonente bi alayhi salaatu salaam wali siwaaya na daqaale mu jëm ci kudut man ndax ya lépp loo xam ne lu nu tere la wasaxaa ak texee di ba tey kafa na fegaale wama ak lépp loo xam ne yaxrimu ni dana ma xañ man jëmmi sëriñ tubaa ji irtiqaa irtiqaa ak yëkkatiku daraja lépp loo xam ne man dama xañ rek samay tiyaaba samay jëf yëpp di yëkkatiku jëm ci yàlla samay daraja di yëkkatiku jëm ci yàlla rek lépp lu ma ko nar rek yàlla na ma ko fegaale ba nga xam ne musiba yooyu yëpp dana ci mucc moo tax mu ne kaffa na ma fegal na ma fegaale lu ma lépp loo xam ne yaxrimu nii dana ma xañ irtiqaa ak yëkkatiku daraja ba tey wajaada dana tabale lii ñeel ma bi kasarati tilaawa ci baril jàng alxuraan fu mu toog rek damay jàng alxuraan wa sikira ak tudd yàlla wa salaati ak julli bil halaawa ànd ak neex ga salaatu gi nga xam ne moom laa sàkku ci yàlla mu sotti ko ci kaw yonente bi alayhi salaatu ak waa këram ak saabaam yi ba noppi nag mu woomataale ma lépp loo xam ne samay càkkutéef la waaye dàqal ma lépp loo xam ne lu ñu tere la ak lépp luy xëj texe de waaye fegal ma lépp loo xam ne dana ma xëj ak yéeg ak yëkkatiku daraja waaye itam na ma tabaaleel ci bëril jàng alxuraan nga xam ne fu mu toll rek damay jàng alxuraan waaye di tudd yàlla waaye di julli ci yonente bi alayhi salaatu salaam kon julli gi lam ci jublu rek mooy maanaam salaatu ala nabi la ci jublu moo tax ma ne goo xam ne wajaada dana tabaale lii ñeel ma man sëriñ Tuubaa bi kasarate tilawat ci bëril jàng alxuraan wa sikri ak bëril tudd yàlla wa salaate ak bëril julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaye nag yépp boo ko boole bil xalaaw na ànd koog neexit ga na xam ne jàng alxuraan ga naa ci am neexit ga wa tudd yàlla ga naa ci am naa ci yëg bànneex ak neexit julli ci yonent bi naa ci yëg bànneex ak neexit lépp boo ko boolee naa ci yëg ak neexit ndax xabli diraayax la dal addaay la sëñ Tuubaa waxoon xabli tilaa wax maa la allaa wax nanga maa ngi lay ñaan nga may ma may jàng alxuraan di ko tartil waaye nag ànd koog neexitu jàngit ga kon mbir moo gis rek la ci ëpp doole mooy neexati jàngat ga kon yàlla nanu yàlla defal ñaam cafkaay alxuraan buñ koy jàng am yëg-yëg waaye itam te duñ mukk ndax wala tusaama lay saar fi saami téere la boo xam ne kenn du ci yokkat noo jàngee rek maanaam gën koo bëgg noo ko jàngee rek gën koo toqat mi te du mos a sàppi bis bu ne da ngay jàpp ne sax tey ji la moo ta kon mu ne nag ma tabewaale bërit jàng alxuraan ak bërit tudd yàlla ak bërit julli ci yonent bi waaye nag ànd koo neexit ga wajaada na tabaale moom ba tey lii ñeen ma wal ahmaali ak jëfee xam-xam ba wa bi taatu bi ànd koog teggin ba wa bil kamaali ànd kook mat ga ba tey na ma tabewaale muy jëmmi salaatu googu nga xam ne laa sàkku ci yonent bi alayhi salaatu ci yàlla mu sotti ko ci ka yonent bi ak saabaam yëpp ak waa këram ñëpp ba tey na ma tabewaale ànd koog xam-xam ak jëfee xam-xam ba ndax xam bu ne lañ ciy séentu mooy jëfee xam ba ndax kuy jëfee xam-xam rek mooy ku yeewu dëgg-dëgg moo tax mu ñaanoon ca mi daa dina wahab li xayran ilmin wasit nuppi maa ngi la ñaan nga may ma ngën ci xam-xam waaye nag ma dolli ak yeewte kon xam bu ci ne lañ ci soxla rek mooy nit ki bu jàngee xam-xam ba noppi mu lay yeewuteem nag mooy muy jëfee xam-xam ba waaye nag laa biir de di ci laa biire ñeneen ndax ki gën ci nit ñi mooy koo xam ne jàng na ba noppi waaye nag tey jàngale xayrukum man taallama alquran wa allamuhu moo tax mu ne jëmmi salaatu googu wa jaada dana tabewaale lii ñeel ma lii ñeel ma man Sëriñ Tuubaa mooy dana ma may rek bil helmi ànd ko xam-xam wal ahmaali ak jëfee xam-xam ya wa bi taaddu bi ànd ko teggin ya wa bil kamaali ak mat ga nga xam ne lépp dama koy matal xam ba ak jëfee ga teggin ga lépp dama koy matal yaa sayidi yow sama sang yaa buqyati yow sama càkkutéef yaa junnati yow samay pakk boo xam ne dangaa dox sama diggante xan kulli sooyin ak walis lépp lu ñaaw abadan ci sax ba faw yaa jënati sama aljana woona yonent na ko yow sama sang yow sama càkkutéef nga xam ne yow rek lay sax guddeeg bëccëg yaay samay pakk maa yaay samay défense bi nga xam ne yaa may joñal lépp lu ñaaw loo xam ne dafa nar a ñëw ci man waaye yaay samay aljana mënumaa toog une minute a taguma la mënumaa toog une minute jëluma sama xalaat yëpp sama xalima yëpp dawal ko jëm ci yow mu ne ko salaa yàlla na doolikon aleyka ci yow mun hemun yàlla mi nga xam ne mooy aji xéewalee ji nga xam ne xat an xamaa xéewalee nañu bikka sa daraja ale naa ci ñun wa addaama waaye mu saxal dàkk nag ni amaa li nga xam ne mooy xéewal yi mu ne yàlla na yàlla dolli xéewal ci yow yàlla mi nga xam ne moo soot moo seet xeet yëpp waaye na mu xool jëmb yonente bi alayhi salaam jagleel ñu la nga xam ne kon yàlla moo wàcc yonente bi alayhi salaam su ñun waaye xeet yu wàcc yonente bi alayhi salaam mooy xeet xam ne mboolem xéewal yëpp ñoo ko ràngoo waaye yàlla jox na leen mboolem xéewal yëpp te loolu dafa feeñ ci xeer yu njëkk yi ba ci xeer yu mujj yi loolu yëpp fa tabaarakallahu lu xeetu yonent bi am ñoom amuñ ko woon loolu yëpp ci xéewal yi nga xam ne eh, kii nga xam ne yàlla da ko yónni ngir muy xéewal ñeel mboolem bi defi ndax Insa sax bi ko yàlla yónnee daf noon in huwa ila abdun anhamna alayhi kii dee dama ab jaam la rek boo xam ne maa leen ko xéwalee man yàlla yónni ko ci yéen kon in huwa ila abdun anhamna alayhi kon ab jaam la boo xam ne boo ko yàlla yónnee ci nii tam ña da leen ko xéwalee ngir lan mu man leen di gindi ngir lan bu ëllëg yomal xaamee ñi bokk ak moom tàbbi aljana moo tax kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xéewal la goo xam ne yàlla moo ñu ko xéewale ndaay yërmande la ñeel mboolem bi ndax yàlla ci ñëpp la ko yónni moo tax mu ne salaa yàlla na yàlla dolli xéewal aleyka ci yow yonente mun xemun mi nga xam ne mooy aji xéewalee ji nga xam ne xat anxama xéewalee xéewalee nañu dikk ci sa daraja ale naa ci ñun maanaam lépp bépp xéewal bu ñu mën a am rek ci sa daraja dim la bi la yàlla yónni ci ñun rek lañ ko am moo tax mu ne xat an xat an xamaa moom yàlla xéewalee na xéewalee nañu bi ka ci sa daraja ale naa ci ñun wa a addaama tamu saxal ba mu ñu xéewalee ci sa daraja nii xamaa xéewalee nga xam ne xéewal yépp nag léegi yàlla da koo saxal ndax yàlla bu ko neexoon nam laa def xeetu njëkk ya bu leen xéewalee waan dara ba noppi xeetu njëkk ya beew weddi yàlla yàlla ajaat xéewal ga waaye loolu amul ci xeeti yonent bi bis bu ne ñiy gën di dund ci xéewal ga yàlla da leen wàcc xéewal ngir yonent bi waaye nag xéewal yooyu itam dañuy continuer rek di sax moo tax mu ne salaa yàlla na dolu ko naa li ko ci yow mu ne mun yàlla mi nga xam ne mooy aji xéewalee ji xam ne xat an xamaa xéewalee moom yàlla bi sa bi ci sa daraja ali naa ci ñun mooy ñun jullit ñëpp mooy ñu ko gëm te topp ko ba ñi nga xam ne dañ koy weddi sax te yàlla mu ngi leen di xéwale ci daraja yonent bi waaye nag waa addaama mu saxal nag moom yàlla ani ma jëmi xéwal yooyee ba tey wa kullama ba tey jëmi salaatu googu ba tey wa kulluma lépp loo xam ne istaxta mooy bëgg naa jëm ci loolee xaadat na nga ko yàlla la ko jëmee ko ci yonent bi salaay salaam bilaa masaqatin ci lu benn coona may dox di ko wuti waaye bu ko defee na fan xaadaa mu dal di womatu mu ne jëmi salaatu googu nga xam ne moom laa sàkkoon nga xam ne salaatu gi ba léegi moom lay wax e, salaatu gi li mu koy jural ak li mu koy moyaale moom jëmi sëñ bi mu ne lépp loo xam ne bëgg naa ba noppi jëm ca lépp lu ma bëgg jëm ci rek yàlla na nga ko wommat jëmee ko ci yonent bi salaay sam xam nga waxul sax na nga ko wommat jëmee ko ci man waaye lépp loo xam ne bëgg naa ko rek te jëm ci yow yàlla wommat ko jëmee ko ci na ko yàlla wommat nga xam ne lu may sàkku rek di ko jaaree ci darja yonti waaye di ko sàkku ci yàlla loolee bu yàlla yégée ne maanaam soxla naa ko rek na ko wommat jëmee ko ci jëmee yonti bi alayhi salaam moo tax ma ne wa lépp loo xam ne is maanaam bëgg naa ko ilay jëm ci loolee xaadar nañ ko wommat mu ne xaadar na ko wommat moom yàlla lakka jëmee ko ci yow yonent bi bila masaqatin ci luru benn coona fan xaadaa tamu dal di wommatu nga xam ne lu ma bëgg rek te di ko sàkku ci yàlla waaye bëgg yàlla defal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ma sol samay dàll ci waxin man sëñ Tuubaa jëm ca maanaam yàlla na ko wommat loolee te bu mu ci sonn sax na ko wommat rek mu dal di ñëw moo tax mu ne xaada na ko wommat la ko jëmee ko ci yaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko yàlla wommat jëmee ko ci yow bi laa ma sax na ci benn coona fan xaada ta mu dal di wommat waaye nag moom yàlla musalliman mbir moom muy aji dolli wóolu alayka ci yow yonent bi yaa ku ñu ki yal na yàlla dolli wóolu ci yow mi nga xam ne yaay ku ñu tànn ki wasaaxata mu màng lii ñeel ma man Serigne tubaa yalla màngaaleel ma ci kullama lépp loo xam ne axtaaru danaa ko tànn mooy lépp loo xam ne bëgg naa ko rek dinaa ko tànn fii ci adduna di ko bëgg rek yàlla loolee na ma ko màngaaleel gannaaw ba xamee ne dolli na wóolu ci sa kaw yow mi nga xam ne yaay ñu tànn ki moo tax mu ne wasaaqa te mu màng moom yàlla lii ñeel ma kullama lépp loo xam ne axtaaru danaa ko tànn duniya moo xam ma koy tànn fii ci adduna wuxura ak na ma ko màngal jox ma ko bikka ci sa daraja waaye nag saa salaama mbir mooy bor ma mucc minal xisaab bi ci lépp luy xisaab moo xam a adduna la ak alaxira wa minal malaama waaye mu mucc ci lépp luy xeeti ya daanga moo xam ne la ak alaxira nga xam ne kon sëñ tubaa léppam dañ koy xisaab fii musa yiran kulliyeeti xeeran xisaab nee na sama lépp yàlla isaab na ko fii ci adduna ëllëg yomal xiyaam kenn du ma isaab moo tax mu daan wax ne wax maam coro na ko taalibe yi nga xam ne dañuy indi hëddiya na leen ñuy indi alal joo xam ne ju la ndax damay bañ bu yowmal xiyaamee alal jooju ñu joxoon addiya te lewut sunu borom tabaaraka wa taala di leen ci isaab ndax man suma lépp dañ koy isaab kon nag bu ñuy ñëw di indi hadiya taalibe yëpp nañuy indi hadiya joo xam ne hadiya ju leew lay nekk moo tax ma ne maa ngi la ñaan nga nga màngaaleel ma ci lépp loo xam ne a ko tànn adduna ak alaxira waaye nag sa daraja yow yonente bi alayhi salaatu salaam waaye nag may borom ak mucc ci isaabu adduna ak alaxira waaye may borom ak loo xam ne day yeddaange adduna ak alaxira lépp lu ñuy yeddaange kanam boromam rek loolee naa ci wa tay ba tamu teeyal asamaana jamono lii ñeel ma samay jamono yi may dund lépp maanaam na ko teeyalaale muy jëmmi salaatu googu na ma teeyalaale sama jamono lépp kama comme ni nga xamee ne kama ni ki li nga xam ne moom laa bëgg na ko noonu wakku fa tamu fekk xan ni wëlis ma sarmadan ci lii sax ba fa maa lépp loo xam ne laa uhib déen mu koy bëgg nga xam ne dana teeyalaaleel sama jamono ak teeyalaale lépp loo xam ne bëgg naa ko waaye dan ma feglaaleel ci lépp loo xam ne bëgguma ko rek nga xam ne daf may sëri nga xam ne du ma jege moom jëmi salaatu wasalaam gi nga xam ne kon salaatu gu si sëñ Tuubaa di sàkku ci yàlla mu sotti ko ci kaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam gis nga ne kon ñi nit yàlla na suñu borom dugalaale mu faj suñuy mboolem mbir mboolem suñuy haajo adduna moo xam adduna ak alaxira comme ni mu ko ñaanee ci hisaab ak yeddaange nga xam ne lu mat a bàyyi xet la mbindeef mi mën naa def luñ ko yeddee fii ci adduna waaye yowmal qiyaam itam mën naa dikk indaale ak bàkkaar yu bëri suñu borom dak fa yedd kon loolu yëpp lu mat a bàyyi xel la moo tax mu ne jëmmi salaam googu boo ko sotta ci kaw yonente bi salaay salaam na nga màngaale lépp loo xam ne tànn naa ko bëgg naa ko adduna ak alaxira waaye mu mucc ci lépp luy sab ak yeddaange adduna ak alaxira waaye wa tay ba mu teeyalaale asamaana samay jamono lii ñeel mu teeyalaale lépp loo xam ne danaa ko bëgg waaye wakkax fa mu fekk xan ni wëlis ma samadan ci luy sax ba foofu maa lépp loo xam ne laa uhib déet ma koy bëgg nga xam ne lu ma bëgg dana ko teeyal moom jëmi salaam goog waaye itam lu ma bëggut dana ma ko dàqal mu sëlil ma ko wakaanata dana nekkal lii ñeel ma bikk ci sa daraja yonent bi salaay salaam moom yàlla wa ta dana màng lii ñeel ma al arab li nga xam ne mooy samay aajo xataa asira ba danaa mujj man sëriñ tubaa bi sira xooj min di mbégte mboolem ñi nga xam ne ay lakkat lañ waaye nag di mbégteeg wax arab ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay arab lañ mu ne moom suru borom tabaaraka wa taala dana ma nekkal ci sa daraja yonent bi salaay salaam waaye dana ma màngal lépp loo xam ne bëgg naa ko ci xeeti aajo lépp luñ nit da mën a aajowoo rek maanaam sunu borom dana ma ko màngal jox ma ko ngir lan ci sa daraja nga xam ne man sëñ Tuubaa bu ma yàlla joxee loolu lépp danaa mujj nag mboolem ñi ne ay xarab lañ wala ay làkkat lañ ñëpp man sëñ Tuubaa mujj doon seen mbégte man rek la ñuy bégee te ñaan goog defe naa ne suñu borom nagu na ko nga xam ne kon fa tabaarakallaahu ñaan gu am solo la moo tax ma ne waa kaana dana nekkal lii ñeel ma bikk ci sa daraja yu yonente bi moom yàlla wasaaqa dana màng ba tey moom yàlla lii ñeel ma al arab li nga xam ne mooy samay aajo waaye ci sa daraja xataa asira ba bu ma yàlla defalee loolu nag danaa mujj xataa asira ba dana mujj di bisra xooj min di mbégte mboolem ñi nga xam ne ay làkkat lañ wax arab ak xarab ndax adduna ñaar ñi rek fa nekk muy ñi nga xam ne ay xajjam lañ ak ñi nga xam ne ay xaraab lañ buñ ne ku dul xaraab nag moo xam pël baag séeréer ba tukkulóor beeg ñëpp ci am kuy làkk rek maanaam xajjam nga waaye arab yi ñoom nag dañee beru waaye nag xajjam moom ñëpp ci lañ bokk nga xam ne ñu ñun ñuñ xonq ñi ci am képp koo xam ne doo arab rek ci xajjam yi ci nga bokk ba tey mu ne jëmmi salaatu goog ci boppam wa dama nii dana ma boole mooy dana ma tàppe dana ma ëmb mooy dana ma boole rek ila sihaab ma jëm ci sahaaba ya al umanaa ña nga xam ne wooy wóor lañ ta baax waqaada waaye dana womataale lii ñeel ma bilaa hisaabin ci lu lurul hisaab almunaat li nga xam ne mooy sama mbibét nga xam ne la ma mbibét ci ay xéewal yépp jëmmi salaam goog ma sàkko ci yonent mu julli ko ci sunu baram sotti ko ci jëmmi yonent bi alayhi salaatu salaam salaatu googu moo may boole waale ci jëmmi sahaaba yi ma bokk ci seen biir sahaaba yi xam ne ñu wóor lañ ta baax waaye moo may wommataaleel li nga xam ne moom laa mbébét lépp te xéewal yi moom mbébét lu ñuy bëri bëri yàlla du ma ci hisaab adduna ak alaxira nga xam ne kon loolu jëmmi salaam gi moo ma koy defal moo tax ma ne wa damm ma ëmbaale ila saa bi ma jëm ci biir saaba ya al umana ñi ñi nga xam ne wooy wóor lañ te baax waaye waxaada dana wommataaleel lii ñen ma bilaa hisaabin ci loolu hisaab dana ma wommataaleel al munaa li nga xam ne moom laay mbébét waaye ba tey jëmmi salaatu salaam googu wa hatta dana sippi san bi samay bakkaar wa maxaa dana far xoyo bi samay ayib jëmmi salaatu gi ci boppam ak salaam gi mooy sippi mboolem bakkar boo xam ne nekkoon na ci man waaye mooy far lépp loo xam ne xeeti ayib la boo xam ne yàlla taamul ko ci man mu nekkoon sama bakkan waaye jëmi salaatu ko ba tey waraada dana tàggat dana tàggatal man sëñ Tuubaa lii ñeel ma moom jëmi salaatu ko kulla kanoo din képp koo xam ne widduwaa koon yàlla la koo xam ne jammahaa koog féttéerlu na jammahaa koog nuuru na ci bakkaar mu ne jëmi salaatu gi gannaaw ba nga xam ne moo sippi samay bakkaar yëpp far samay ayib yëpp dana ma tàggataaleel képp koo xam ne ku weddi yàlla ndax inna linsaana li rabbi lakanoodun yàlla nee na xeetu doomu aadama ñu ci bëri weddaakoon lañ seen borom mu ne ñooñu nga xam ne ñu weddi lañ nag nga xam ne dañoo weddi waaye yemuñ ci weddi ko waaye nuuru ca bàkkaar ya nee na yàlla moo may tàggataaleel ñooñoo nga xam ne ba xam ba nga xam ne duñ ma mën a lor waaye seen cëri duñ duñ ma mënal dara moo tax mu ne waraada danañ tàggataaleel dana tàggataaleel moom jëmi salaatu wasalaam googu lii ñeel ma man sëñ Tuubaa kul la konoodun képp ko xam ne weddi koo xam ne nuuru na ci bakkaar moo ko koo xam ne dafa fittirlu bu noppi nuuru ci bakkaar waaye jëmi salaatu googu wajaada dana waaleel man Sëriñ tubaal lii ñeel ma bi kaw ni saa nas mi nekku xasiidi gi sifa di aji saafara man Sëriñ tubaal lii ñeel ma waaye nag di aji saafara walil ummati ñeel xeetu yonente bi alayhi salaatu salaam xay su ko si faa fuñ ko fi man di rek xay ko si faa fuñ ko fuñ ko fi man di tijjee di ko jàng rek nga xam ne la ci jublu xay su ko si faa fi man di murees xam ne dañ koo tijji nii rek di ko jàng nga xam ne jëmmi salaatu wasalaam bi mooy tawe sëriñ bi nekk woy yii saafara ko ci bépp jàngoro boo ne bëggoon na ko moom sëñ bi waaye xeetu yonent bi ci boppam fuñ mën a tijjee xasida gi rek xasida gi da leen di saafara laa fa ko war kon xasida gi xasida la goo xam ne gu am am doole la xasida la goo xam ne gu yàlla nangu nagu la moom jëmmi euh, xasida gi nga xam ne mooy yaa saydi yaa Moustapha yaa sanada nga xam ne kon jëmmi salaatu salaam gi rek mm, gi nga xam ne Serigne Bakka sàkku ci yàlla mu jël ko ci yonente bi moo koy defalaale lii kon nga xam ne loo ama am doole la moo tax mu ne jëmmi salaatu wasalaam googu nga xam ne dama ko sàkku ci yàlla mu jël ko ci yonente bi moom salaatu googee wajaada nga xam ne yàlla da koy nangu nangu goo xam ne wajaada dana tabewaale lii ñeel ma gannaaw ba nga xam ne sot na ko ci ma tabiwaalal mooy dana ma goo xam ne maanaam dana saafaral lii ñeel ma mboolem samay jàngur yëpp dana ma ko saafaral waaye walil ummati naka noonu dana saafara waaleel mboolem xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam xay su ko sifaa di ko jàng nga xam ne dana ma saafara waaye dana safara waaleel mboolem xeetu yonent bi alayhi ba tey mi ngi jàll mu ne wa kafa ani jumlata rasaya bihi wasaqali bihi lmasaya mu ne jëmi salaatu wasalaam googu ba tey wa kafa dana fegaaleel anni wëlis ma man sëñ tubaa jumlata rasaaya mboolem arasa ili ñaawti fi mboolem ñi nga xam ne dafa dox sama diggante ak sama borom ba nga xam ne du ma mën a jaamu yàlla nga xam ne loolee ay hijab lay nekk loolu mooy rasa ili mooy yu caay-caay yu suufe yu bon yi nga xam ne day nekk ci bakkan ak nit ki nga xam ne day dox diggam ak boromam ba tax du mën a am yitte du mën a maneeg boromam di ko jaamu guddi yu ne mu ne jummi salaatu googu nag wa kof wa kafa dana fegaale ani wulis ma man suñ tubaab mooy dana dindi ci man rek jumla ta rasaaya mboolem ay ñawteef bii ci darja yonent bi alayhi salaatu salaam wasaaqa ba tey jëmmi salaatu goog dana màngaale lii ñeel ma man Serigne Touba bii ci darja yonent bi salaatu salaam almasaya may mboolem ngëneeli yàlla yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp jëmmi salaatu salaam gi dana ma màngaaleel waaye nag màngu googee ci darja yonent bi salaatu salaam lay nekk waaye yàlla moo ma koy defal waaye ci darja bi waaye mboolem may yëpp yëpp yëpp dana leen màngaaleel ñi ñëw ci man Serigne Touba waaye lépp ci darja yonent bi waaye yàlla mooy ki koy def moo tax ma ne wa kafa dana fekkaan yi moo lis ma jumla tarasaya mboolem ay ñaawteef yi bii ci darja yuntu sallallahu alayhi waaye wa saaqa dana màngal lii ñeel ma bii ci darja yuntu almasaya mayi kon dana ma fegal mboolem arasa ili waaye dana ma indil dana ma màngal li nga xam ne mooy ay mayi ndax ay mayi lay safaana mooy arasail nga xam ne baraana ko am ay xéwal am ay may yu dul jeex fekk ay rasail moo nekk ca bakkan ma yàlla na ci yàlla musal waaye sëñ Tuubaa ñaan na ñaar yëpp dindi ko ci moom mu ne fa innahu moom yàlla moomee may wax jàlla mooy aji màgg ji ala saako kookee ma leen di junj booba léegi xaddir mooy aji am mooy aji am kattan ji nga xam ne sunu borom bu jëlee jëmi salaatu wasalaam koo xam ne sëriñ bi sàkkoon na ko ci moom lii yëpp sëriñ bi nga xam ne day wax yàlla rek mu defaaleel ko lii te lépp ñaan la yoo xam na ko bi mu yegsee fii te indi mu aw turam ma leen di wax nga xam ne ku fàddu la damiru xaayib la moo tax mu indi haa goo xam ne haa u xaayib la mu ne fa innahu kookee ma leen di wax jàlla mooy aji màgg ji xalaa sàkko kookee xaddir mooy ajaam kattan ji mën na lu ne yépp yëpp mën na ma ko defal bu ko neexee mu defal ma ko te mën ma ko defal te dana ko def sax te def na ko defal bu ko neexee mu defal ma ko te mën na ma ko defal te dana ko def sax te def na ko ba noppi xanaa saa ko kookoy xadir mooy jaam kàttan ci waaye kookoy ma leen di wax ba noppi wa bi ijaabati wa jadiir aji yeyoo la bi ijaabati ci wuyu duhaa a daaxeen muy ñaana ko aji ñaan yi ga xam ne lii yëpp ñaan la yoo xam ne da koy ñaan waaye mu ne yàlla kat aji yeyoo la ci koo xam ne da koo ñaan ba nag mu wuyul ko ak ñaanam ndax yàlla mooy ku jege ki mooy koo xam ne dafa jege ba ne bu ngeen ma ñaane lépp lu ngeen ma ñaan rek man yàlla ku jege laa man yàlla danaa wuyu ñaan ak aji ñaan ñi bu ngeen ma ñaanee ni ngeen ma war a ñaanee moo tax mu ne fa innoo kookee ma leen di wax boobu léegi jàlla mooy aji màgg ji taala saako kookee xadir mooy aji am kattan ji mooy ki nga xam ne taliwu dara lépp la man te wajjadid aji yeeyoo la bi ijaabati ci nangu duha daaxen muy ñaanuk aji ñaan ji ki nga xam ne da koo ñaan moom yàlla ta jaaree ko nan ko war a ñaane ca sarta ya nam gën matee nee na kooke bokk na ci rek koo xam ne du lekk dagan du ñaan yàlla mu nangu ko mukk waaye dundee lu dagan rek nga xam ne biiram lépp dafay set ci lépp loo xam ne lu lu daganut la fa tabaarakallahu na ko wóor na ko bu ñaanee rek mook bal bu tàkku ñëwee suñu borom da koy nangul moo tax ne wa jëddiir moom yàlla aji yeeyoo la bi jaabate ci nangul duha daaxen ñaanu aji ñaan ji ku mën a doon rek bu ñaanee yàlla ta ànd kook sellal nam ko war a ñaanee rek sun borom daal di koy nangul ñaan yooyu yëpp yàlla noonu yàlla defal dégg